nit ak nit it ci ñi ñuy gis ñu dox ak dikk di am ay ñu ne kii mooy maamam wala kii mooy bàyyam it kóllëre googu doxoon na diggante Sëriñ Cerno Birahim ak Cheikh Ahmadou Bamba ndax bi muy dem ci bi ko tubaab yi jàpp te ba fi mu toll nii tubaab yi waxaguñ ne nangam la jote ak ñun bañ jàpp ko ci biirum njabootam tàggale ko njaboot gi lakk ay këram gental ay sancam ba léegi waxuñu jot ak moom waaye ba muy dem tànn na aw nit kenn ku ci nekk mu am lu mu la dénk te fekk loolu la ko jiitu mooy kóllëre goo xam ne moom ma ngi koy sàmm ñoom it ñu di ko sàmm waaye bokk na ca lam joxe daara ji joj alxuraan ji jooj xam-xam ji jooj yare gi ak lu way xewle su ko waxee ka fa gën a jege mu dem taxaw fa taxawaay bu mel ni man maa fa taxaw loola it ba mu defee juróom yaari at ak kus lëf ba dellu si am na ca ñu wane misaalum kóllëre dana ci ma a jóge yonent bee ko wax te ay waxam du dañ mukk wa ma yantiqu anil hawa waaye ñoom lañ façon nit mooy kenn ku ci nekk kóllëre ga moom day dëgëre ci moom waaye dara du yàq ci moom bi mu dellusee ci réew mi am na ñoo xam ne romb na seen dëkk ba mu leen toog loo woon sëñ Abdourahmaan loo bokk na ci romb na ko fii mu ko dëloon sëriw dara dem fekki maam sa Anta Daaru Salaam waaye ngan nga la muy yàgg-yàgg ci Daaru Salaam ak li muy neex-neex ba ñu ko waxee suñu Abdou Rahman ak maam Thierno ak suñu bàkk bi su ñëw kenn ku nekk dana mankat kat fa ma tooloo woon lay toog ba ba may wowal boppam loolu it bind bu réy ngi foofu boo xam ne dégg nañ ngan nga lu nekk def nañ ko ci ci ay xéewal buuru seen bët waaye la buy seen bët mooy ka waxoon ak ñun waxaatagut ak ñun ka waxoon ak ñun waxaatagut ak ñun dara kon dañuy toogaat rek bam ne ñëw leen walla maa ngi ñëw fi yéen loolu it la ko tàmbalee ci bu yàgg ba ci jamono yow yi ñu ngi ko doon sàmm waaye bi ñuy doxaat ba mu yàgg it euh, ñu bari si ñoom jóge fi maam Thierno bokk na ci ñi fi mujj jóge moom suñu mbàkk bu saak si Abdourahmane ñoom. waaye bis bi nga xam ne moom la ñuy daje tey fa Daaru Muxti euh, di ko daje ci kanam tuuti ak jeneen rakki Sëriñ Tuubaa mu Masamba Mbakke bis bi ñu doon màggal moom it li ko indi ci bis bi kóllëre la ndax beneen bis lañ jàppoon ci weer wi di ca fàttaliku mag Cerno waaye kóllëre gu ñoon sàmm seen diggante ak Sëriñ Tuubaa it moo tax bi Sëriñ Fallu Mbakke ñëwee ne leen bis boobee dangeen koy bàyyi ma jàppal leen bis boo xam ne bis bu fi yàgg la dara luy sax ci kaw suuf amut waaye mën naa am fàttaliku goo xam ne saa bu ñëwatee ngeen fàttaliku ca ne kóllëre nit daf ko war a sàmm digganteem ak yàlla waaye daf ko war a sàmm ngi digganteem ak moroomi jaamam yi bis mu ñëw ne leen dem leen bu bisub nisfu saabaan ñëwee fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ngeen di ca wooteel maam Cerno ñu ne ah mu ne bis boobu bi sëñ bu mag bi euh, dénkee maam Cerno li mu ko dénk ba dem ba dellu si leen njëkk a gisante waat sëñ bi ne ko jërëjëf ci kóllëre gi nga sàmm ci ndénkaan li mu ne ko yewet jërëjëf ci kóolute ak kóllëre gi nga am ba dénk ma ca lan ma ca dénk maa mel na na ko bëggee woon mu ne ko tubarkàlla am na ñu ciy wax sax banaan sëñ bu mag bi nee na ko ndax su ma dem soo demoon ma dikk ma toog man dana mel nii wala déet loolu la muy tegtal rek mooy kenn ci ñoom kenn ku ne ci ñoom ñaar sant na moroomam moo ne noonu la ko defee it ak suñu mbakki bu saag mag ñëpp ñi nga xam ne ba muy dem bàyyi na leen fi ñëw fekkaat leen fi am na si ñoo xam ne it kullale tax na sëñ bu mag bi ne bañ faatoo nañ leen denc ci suuf soo soofee ñu doon liggéeyal yàlla te doon fa sàmmante yàlla kóllëreem ko sëñ Masamba jox sàmm ci la bokk am na ñoo xam ne it bi ñu ñëwee fekk ko njëreem lañu faatu mu ne dëgg dëgg nag suuf njëreem si wëllërante na ak moom kóllëre goo xam ne duma ko ko xañ naa ko jox mu di ko wettiliku kon bis la boo xam ne moom itam ni ñu koy waxee ci màggal yu bari bu dee ak màggal la goo xam ne dañ koy sedd àdduna cër waris na caa nafaraat li waraloon bis bi bañ di leen ko jox ñu di ko màggal mooy xam ne kóllëre daawar war di yaasaat saa su nekk diggante nit ak boroomam waaye diggante nit ak moroomam jaamam rawatina nag ñaar ñu toll noonu ak lañ dénkante woon ndax sëñ bi sëñ fan lu nee na amul ludul taaliba yi taaliba yi amul ludul sëriñ bi yàlla jaam ñi la am jaam ñi amuñu ko yàlla ku sëriñ bi fab taalibe yi nag teg ko ci sa loxo am lu mu la ca féetale jël leneen féetale ko keneen kenn ku ci nekk cére ba mu la bala sëriñ bi jox kóllëre gu wóor lañ ko dund ba ñenn ñi gannaaw sëriñ bi lañ fi jóge waaye kóllëre ga daggut ku ci mel ne sëñ Masamba bokkoon na ci ñi gën a ci bi ñuy tabax jumaay Tuubaa ci jamono suñu mën Mustafaa ñi ko jiiti woon waaye suñu mbakki bu sa noona waaye Cheikh Issa Dieng noona kenn ku ci nekk fa ko sëriñ bi tegoon ak na ko joxoñe rek foofu la tegoon tànkam kon njàngum réy ngi foofu moo xam ne lii xew ci jamono ji mën naa bañ a fàbbi nit ñi rawatina bis yu mel nii bu dikkee ñu tasaare ko nafaraat ko xam le xam ne ñu ko ko doon jàngalee rek Euh, si yëpp xam ma toogoon fa toog ñu ne ko sëriñ baa ngi darul daru salaam xéewalee nii la mel naa la mel buuram bëtam buurut lu dul sëriñ bi dara buutul buurul bëtam lu dul sëriñ bi mënoon na ne ginnaaw sëriñ bi jege def te namm naa ko gis naa ko gis kenn du fa jiitu waaye dana sëriñ bi waxuma woon lool ñiy jàngale ku daal nag noonu lañ koy jàng dañ ne la sooy dugg sooy topp ab tabla mu dara woon ab dëkk ba yàgg nga dugg ci dëkk gisaatoo tabla booba gisaatoo turu dëkk ba xamal ne moo yoon wi nga jaaroon rek taalibe yi daal kenn rek mooy seen royukaay muy Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom képp la tubaab yi jàppoon moom dong lañ tasoon këram moom képp lañ embarqué yóbbu ko xamutoon fu mu jëm xamut lu mu defet bañ di ko jàpp ba ba muy si wat nag di signeel yëngutu yu bari yi ak mbooloo yu bari yi na ñëpp jàpp ci lim dundoon te fasanteeg moom kóllëre googee ñoo ñee fasante woon ak moom ba tax bis dikk tax mbooloo di jóge fu nekk di leen wuy ji te boo demee doo ko gis doo ko dégg waaye njiitee fub suñu borom moo du ndax saay mukk kon lii lu coow bari bari ab murit moom na delluwaat rek ci mbindum Sëñ Tuubaa dara gënu ko wóor Sëñ Tuubaa nag bind na mbind yu bari waaye dañ cay jël yetti yetti ñetti ñetti fan rek lu doon lu ñuy tasaare di ko détaillé waaye bind na wax digganteem ak subhanahu wa taala dugalaale yonent bi si biir sallallahu alayhi wa sallam waaye wax na digganteem ak ñu topp ci ginnaawam kenn ku ci nekk fu muy teg tànkam fa cay gën sëñ bi bind na ko ci ay téere yoo xam ne moo ko mu murid na leen daa leen bindal téere yoo xam ne da koy jàng te ku ko mokkal te jëfe ko kenn duutu la raw ci xam-xam kenn duutu la raw ci pas-pas waaye am na yeneen yoo xam ne moo ko bind moom digganteem ak yàlla képp dugalu sax yonent bi ci biir sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla may na ma moom moog yàlla képp la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay nii laa koy toppee moog yonent bi la waaye wax na ak ñun nag jafe-jafe bi ñu am nag mooy li sëñ bi wax ak ñun nanguwuñ koo jàng te moo ne woon bu benn murit def lu mu amut ndigal. laa tafaalu shay'an bi gayri idni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni waaye ñoo tànnal suñu bopp léegi tànnal sa bopp nag luy lii ak fuy fii mën na caa am aw yoon tàmbalee ci sëriñ bi yam ci képp boo ko déggee mooy yam ci tàmbalee ci lim doon bind tey wax ak ñun suñ ko mokkalee te jëfi ko ba làgg ca soo ko dugg soo ko tàmbalee dugg nag ci diggante yonent bi moom yonent bi wax mooy kan ndax ci biir wax gi muy wax ak ñoom da ciy tuddal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye suñ demee ba àgg foofu it ba ñun ca lu bari roy ko ca lu bari soo ko tàmbalee xool nag digganteem ak may yi ko suñu borom may xanaa may yi ko suñu borom may su boobaa danañ ko soxla ñun xanaa duñ ko nettalante kese rek bàyyi noona xanaa danañ ko jéem a wuti am ko yàlla na yàlla maraleeg boppam. te feewa la ñëw seytaane ba faw te dimbali ñu ba ñu teg sañ suñ tànk ba faw it ci sàmm kóllëre gu dox suñu diggante ak suñu boroom ak kóllëre gu dox suñu diggante ak suñuy moroomi jaam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina